Cheikh moom dama dégg dafa mën lépp. ah da mën a lépp moom dafa mën lépp dama ko dégg. yow lay saa mi neex na de sax pour nga retaan loo ma nga neex. mais moom dégg naa dafa ah, ku neex la dafa neex ku neex pour ma ree man il faut nga neex waaw ah, waaw may ñu benn balaa ngay may ñu benn rek waa dama lay may ñetti. Euh, ñetti paa yi doon concours nodd rek. waaw demal. boobu xam na moo moo def bës. <laughs> sinon yeneen yi dafa fort. bon waaw paa yi dañoo ñëw ñu war ñu war a ñu war a lii ñu war a nodd quoi ku war a jiite jàkka ji. sa ah. jàkka dañ ko inauguré bu bees. Ah. mu am bambara am géwél am naar <laughs> léegi nag. bon naar bi lañ njëkk woo ñu ne ko mm. waaw Abdoulaye egsi yow yaay naar bi yow yaa war a nodd Abdoulaye daal di egsi xam na moom yàlla naari yàlla da leen may accent ñu am arab pare dégg ko Abdallah ñëw akbar allahu akbar <laughs> ko non ah. xaaral. ñaar ñu des ci ginnaaw. léegi ñu ne géwél bi bon tu te prépares. yow yaay ñëw mbay mbay ne naam ñu ne ko yaa war a dugg si de. mbay daal di taxaw daal di dem si coulisse yi ne ah. kii moo ma gën a jàng. gën ma am accent arabe. Mm-hmm. kii maa dellu samay maam. Mm-hmm. géwéle rek. <laughs> mel ni man rek mel ni yow <laughs> mu ñëw daal gars yi ne ko waaw Aïcha Mbaye yow la mu ñëw. xaaral xaaral xaaral te xam naa géew bi daa mel ni man ma ngay ma ngay def ay façon allah. ah man ku ma ree ba jooy da ngaa neex <laughs> agalil léegi keneen ki ah. bambara bi yow dafa lay song xeex ah. tey doo def fii ngay toog ba 11 heures. bambara ah. bi nag. <laughs> tey neexul baat waaye doole kese la bu ñëw xool gars yi taxaw rek bu xool situation bi critique rek mu yëkkati yére bi. <laughs> malik kan moo mën a àggali émission bi uy ma waaye nga ni géwél man géwél bee ma daaneel géwél bi mu ñëwee moom bi mu ñëwee lu mu def nga ni géwél bi kaay toog sama wet kaay ah? yow dama lay bëgg kaay kaay kaay yéen ñëpp leen ma ko waaye gi yàlla kaay kaay toog sama wet ah toogal ah toogal toogal fii toogal fii léegi Mouhamed ñëwal <laughs> ah oui yaay yooyu yow nga ne géwél bi lu mu wax. bi muy nodd boo leen garmi mu àggali émission bi. ah El Hadj ñëw di ma toroxal rek xale bi ñëw di ma toroxal rek xale bi daal ñëw daa ñëw di ma toroxal rek ay satu voilà ah daf maa toroxal de léegi dama bëgg nga dégluwaat léegi Mouhamed Ndiaye sarax ma rek sarax ma rek sama waa ji taxawal rek taalibe Serigne Serigne Saliou bi moom daal def na fi lu garaaw El Hadj El xale bi nee na daa amoon concours nodd concours nodd bi nag kii moo woy ak Youssou Ndour yànd bi El léegi nee na léegi dama bëgg nga déglu ko nett nettalil gan mi euh, léeb bi nu mu demee demal rek demal rek demal rek Mohamed da lay dóor de gaaw ci la hmm. léegi Euh, ñetti ñett yi ñëw présenté wu concours la ku dàq noddu koo koy jiite jàmm jumaa ji léegi naar bi nag yàlla da ko may accent arabe bi daal xam nga waaw dafa jàng mën a prononcer arabe mu ñëw allahu akbar allahu akbar naar bi allahu akbar ilaha kii dafa mën ah. yow nag mosuñoo dégg nodd bu ñu mel yow daal daanaka bu ñuy ñëw deful lu baax yaay ji tëjuwaay mu des géwél bi war a ñëw géwél bi nag biñ ko woowee ne ko ah mbay mu ne naa mu ne ko egsi mbay daal di ñëw léegi mu ñëwee ñu ne ko waaw yow de yaa war a ñëw mu dugg ci tuuti daan na nii ah naar bii Ah. naar bii ma eh, eh, gën a jàng. ayya may araf. gën maa tegu. ayya te dellu ci samay maam. dellu ci samay maam dina ma indil dara kat. bu ah. daal di ñëw ko waaw. agsi mu ñëw <laughs> mu ñëw mu ne allah waa waa waay waa kubar. <laughs> gisee ne ko moo lii lan la. <laughs> mu ñëw dégg nodd bu mel nii. waaye eh, Baye Cheikh. bon Mohamed Mohamed nañu pose quand même mu revue de presse. mais mais ku nekk li nga li mu doon rek la def. loolu la def na li mu doon kii li la doon. moom du Mohamed Ndiaye Mohamed Ndiaye Mohamed Ndiaye xam nga di xale bi dafa yebaatee ah.